Tel. ay ca internautes yi leen ci àndal ànd ceeg téléspectateurs yeeg auditeurs yi ànd ak suñu ay partenaire bokk na ci boisson bi nga xamee ni moo di boisson cidre fruité bio ku nekk bosom joolal noonu la ñu àndeeg My Free application bi nga xamee ni opérateur de téléphonie mobile boo ne mën nga koo téléchargé di fay sa ay facture di dox sa yitte te doo jug fi nga toog Free dafa universel si xbet mi tax ñuy mën a parier en ligne mën a am ay neexal yu tollu ci million de francs CFA loolu dëgg la moo koy lan te moo koy mu yër naa leen nettali kaa bi xew ci kër gi ci suba ak léegi de li fi xew dama ko rusa wax mais dinaa ko wax nag nijaayu Amadou. wura moo ko sax. soxu kaa bi xew ci kër gi ju subaak léegi. ñaari xale yu liggéeyee ci kër gi ñaari technicien ndeke dañoo bokk coro dañoo bokk gel te xamuñu ko. soo ba tey ñu ngi histoire ci kër gi histoire bu metti boo xam ne. dama arrangé bay bëgg a dee. Eh, ah, xala xale bu ne ngeen dem fa xale bu ne ngeen dem fa dañoo ñëw daal fii ñoom ñaar daal ñuy waxtaan ku nekk ñuy waxante seeni sekkere nekk noo bokk gel ñoom ñaar ñu mujjee histoire bu metti nag mbay may arrangé ñaari technicien lañ kenn ki Zik FM lay liggéeyee kenn ki Sen TV depuis ce matin ñi ngi raak xam naa nag direction bi laay mujjee woo ñu arrangé leen fii lañ toog sànq di ñaanalante déedéet xale bi bëggu leen baleen ko xam na ni yéen ñaar yéen bokk fi ngeen di liggéeyee yow banlieue yow la ñuy tiitaroo tu es notre fierté nationale Amadou Amadou Amadou séddoo naa la te ku la seddoo ndaw si ngeen bokk de ku ko seddoo per xale xamul sax du bëgg a nekk bien commun léegi way Amadou nit ku baax kooku Amadou nit ku baax nit ku baax la Amadou yëppul nit ku baax nit ku baax la tey ngay jooro nit ku baax loo Amadou neexulee na tu fais naître fierté de la banlieue madame Diagne neexulee na eh. moment for doo ko sëf moom tee sa bos marem ni tubaab tey ma jiin la marem amoo doo ko sëf sa bos xol du oom ba nu koy bës ku nekk bos ak sa bos. xol du oom. xol du oom ba nu koy bës. ku nekk ak bosam. Amadou Marème moo ko sa. teel Amadou teel sa bos. xol du oom. xol du oom ba nu koy bës. ku nekk ak bosam. déggal fi. ewa. bàyyi ko bosam. teel. yow teel sa bos. xol du oom. xol du dañu koy bës ku nekk ak boosam dëggal loolu téléspectateur yu Sen TV ñu ngi leen di ziare bu baax Zik Feeling mooy wéy ñu àndandoo ak yéen jëm 14h incha allah ku nekk ak bosam na ku ne téye sa bos mu gën a neex. internaute yu Zik FM 89.7 officiel. eh waay. waaw waaw. mooy roi des arènes. mooy roi des arènes. prix fort du moroomu fort. teeyal xol du oom ku nekk ak boosam ciy li teeyal xol du oom tey ma jiir la <laughs> Marème amoo doo ko sof teeyal

billaay xol du oom ba nu koy bës ku nekk ak boosam billaay bàyyi ko boosam yow teel sa bës xol ku nekk Ba ay sa too ko saf Ousmane teel sa xol du oom ba nu koy bës ku nekk la te moo bu guddi jotee moom teyel xol du oom xol nu koy bës ku nekk ak boosam dama ñal ma leen ak ki la saf bee ko saf kii naar bee ko saf kii séeréer bee ko saf kii njaago bee ko saf kii joolaa ñaari technicien yi ci kër gi nak ñoo bokk xalé bu len sax <laughs> ñoo bokk cior ma xat la kër gu ne ngeen dugg fa bala ma dem bala ma dee ngeen di dem di sotti seetu sen TV t-shirtu sen TV ak t-shirtu Zik FM <laughs> kër go dugg pa bi ne la bismillah yegg sil <laughs> xam nga pa yi dañu bëgg dañu bëgg dañu bëgg dañu bëgg des médias mm-hmm. yaa ngi dégg buñ ñëwee ci biir kër gi paa bi bu gisee nga sol t-shirt seen TV rek mun la yegg sil ndeysaan boo ñëwee ñu naan la nga def ana bugaan nga naan léegi nii maa moom ñoo nekkoon léegi télé balaa jóge arab fekk cent ans gisuñu du dëgg cent ans gisuñu ko Soxna Fatou sànq ba tey maa ngi arrangé suba ba léegi ñaari technicien lañ yoo xamante ni dañoo bokk kii as ndaw su suñuy doxaat ñoom ñaar yaa ngi dégg yow. maa ngi li ma bëgg wax mënu ma ko benn technicien bi ci tele bi la ne. comprendre nga. Mhm. beneen technicien bi ci rajo bi la ne. mooy ñooñu noonu. ñoom ñaar dañoo bokk gerte. <laughs> auditeurs yeeg internet yi lu neex laa leen di nettali. loolu de bettuma ci ñoom. ñoom ñaar ñu toog di waxtaan ku nekk di bàkkoo ndaw si quoi ba ñu xam ne ñoom ñoo bokk ndaw si ñuy wax. <laughs> léegi ñu def na ah dina dina histoire xeex ñaanalante. ah ne vais sank ñuy ñaanal. ñaar la li nga ci biir kër gi ñaar la. Eh, je n'ai pas compris. xam naa nag problème bi direction lañ koy mujjee lañ koy mujjee arrangé <laughs> na loxo de. eh, eh hmm. dafa garaaw de. torop dañ doon naroon kii dañoo nekkoon di xeex fi. waaw man dégg li. bi li ak ñu doon ñaanalante. sécurité bi lañ ci gis naa ko bi muy yee. <laughs> waaw waaw bi muy daw ba. waaw tuuti mu daal. waa waa waa hmm. maa laa kër gu ne ngeen dugg fa. di ngeen daje kay. arrêté leen loolu. kër gu ne ngeen dem fa yooyu ngeen war a bàyyi. dee leen yam benn place te bu ngeen di dem ngir yàlla ngeen si ngeen simmi suñu t-shirt yi t-shirt seen TV yeeg Zik FM yi dimbali leen ñu ngeen simmi ko. dégg ngeen moom la ñuy dóore. ah moom la ñuy dóore di. dóore non non nañ koy simmi rek. Ah. bu leen yóbbaale suñu tur ngeen dem di di kéwéer ñu sikkal ko waaw ñu leen nu yàqal leader gi nu doon hee fii ba 14 heures mën naa leen wax technicien bi ci tele bi nu mu tudd wax leen ci technicien bi ci rajo bi kat la suturaal leen rek ah bàyyi mbay suturaal leen rek dama leen a bëgg a riita mballe dama leen bëgg a riitambale soko dama bëgg légui ni bala bala ngeena dem stade ñu wax ci U16 euh, yi nga xam ñoo doon jongonté ñoo tam duñu ay U16 de tam dañ ci wara wax de U16 yu RDC yi ami moustas dañ de barki yalla ñok sama mam ñoo maase maguñu sa maam ah est-ce que maguñu sa maam i yooyu moustas yuy sikkim yu béjjam ci madame Marie ma mo ginyak Ginyak, ñaax jor di ñaax dema may sa jor delu fa delu fa yang may laaj ñi ke joxe ay tour bu leen togn nak ñi neenañ nak cheikh Antak ak chimère la wala ki neena ndax soxna fall la ak no soxna fall ki wut soxna fall du technicien deug deug di ñaax joor di ñaax may sa joor loxo ci depuis Bargny la seetaane moom itam Cheikh Gueye moom itam mu ngi ñuy seetaan Muxtaar mu seetaan depuis euh, Côte d'Ivoire Linguère Ndiamé Gueye Balla Camara nee na Zik FM la rajo leader Xadijatu Njaay nee na si Xadijatu Njaay dëpp gin gi néew nga ne korgale ñëw na korgale moom yëngooti na korgale ñëw na korgale moom yëngooti na ah ah man guddi laa koy yëngal guddi laa koy yëngal ndax guddee ma saf korgale ñëw na korgale moom yëngooti na dee ko yëngal mu saf su ma di ci digg bi ewa seydi moo gi ñaa jadinya Demba dali may sa jor Jor mana Jor penel Uy sa manay Kanyuri sa mali Amalingone anambay Mo ginyak Ginyak Jor ginyak Demba dali may sa jor Ewan cey mbay si nga ni korgale ñëw na korgale moom yëngooti na déggal korgale ñëw na korgale moom yëngooti na ah. Ah. moo guddi laa koy yëngal guddi laa koy yëngal ndax guddee ma Korgale ñëw na Korgale moom yëngooti na soxna Fall foo wàlli daan koo dajel duma ko moo gi ñaax soxna Fall ay di ñaax joor di daali may sa joor joor mana joor peneere Sheikh nga nilang lan ani soxoma suma xobedi ci digg bi tay matek ko ci Mogi niya. ñaax demba daali may sa joor Jor mana Jor peneer mani soxna faal Kowali dan ko dajel duma ko sama ndey ja kaañu riita mbale moo gi ñaax di ñaax joor di ñaax dema may sa joor joor mana joor peneer am na ku ma envoyé message nee na ngay ree ñuy gis sa boqal bi lu seen yoon tam réew mi maanu wuñ de boqalu xale bi lu seen yoon ay man mani Korgale ñëw na Korgale moom yëngooti na wan ma ñëw na Korgale moom yëngooti na ah, ah. guddi laa koy yëngat guddi laa koy yëngat ndax guddee ma saf Korgale ñëw na Korgale moom yëngooti na cey lii kayo ma ko TV dañoo tooy nag de kaay fii ma présenté la askan wi afi da ngeen bëri ci dana yéen waa seen TV lii rek tax ngeen soof ma taxawal ni ci loo ne yaa ngi am jàmm bul articuler waxal normalement rek pron looy prononcé Cees nga dëkk te amul géej bul prononcé ah lan non dama lay waxal rek Cees amul géej bu fi nekk di articuler ko prononcé yaa ngi may dégg ci loo yaa ngi am jàmm gis ngeen maquilleuse seen TV ni ñu jongoma <laughs> maquilleuse ki mooy Afi Samb affaire nii la grande maquilleuse soxu. seen TV maquilleuse sax dañoo am xaalis ah? xale lu muy def dañoo am moo tax temps yi bëgg naa nekk maquilleuse kon ah daa xaalis Afi mm. yi TV ah. Afi Samb Fat Diop Jaariyatu Louisa Jambi Asta mm. dañoo eh, am xaalis de. afi kay bu yeboo say mbokk fi ne moom. diggante Cees ba Ndakaaru waaw ku am soxla wal afi ci loolu rek tey fi génn génn naa la sa waaju bu la gisee dina kontaan nag <laughs> ah ma ne sa bu la gisee dina kontaan de maa kenn nga am yow kenn nga am ma hmm? kenn nga am wala yu bëri célibataire day teg yu bëri xale day def casting <laughs> man bëgguma xale buy teg benn dangay def ni soxna Fall huit la yore. benn kese benn doo gaaw a gis li ngay seet xale day def casting man bëgg naa loolu. ah li dama bàyyi ngir wax nga dëgg wax naa dëgg dañoo am xaalis yéen yéen merci beaucoup waay Afi Samb jërëjëf. Rita Mbale nga mën feeñ nga feeñ nga mu la set yaayu wàlli kaay eh waay soxu may naa la lii eh, géej feeñ nga waay saxu mu la set yaayu walikaay

I see you, you don't know Set, tet, tet, tet, tet, ñoom day gëy ak ñoom Pape Moussa Sonko fecckat yi macha lu ñu leen fay jar ko waa pop pop fecc bu rëy ayaay ah chéri yaay ñoom nday gëy ñoom Fatou Wore waaw leen fay jar na ko. man ndeke mag laa mënatuma yenn yenn effort yi ah. korsu mën nga fecc nag korsu bu sax wóop wóop wóop wóop seet teet teet teet teet kii nee na ma Alima da ngaa diis <laughs> ki wax lii kii bañ na ma xaadim bey. xaadim bey nee na ma Alima da diis. ah Sophie Sophie Goudiaby nee na soxu rek ak a mën a fecc Ahmed Ndiaye nee cëy ah Fat Niang nee na waaw waaw Birahim uh, Maysa nee na waa seen TV ca kaw ca kanam bég naa ci yéen. Khady Touré nee na ndeysaan waali Ndey Marème Ndiaye nee na soxu toj nga fi ah Khady Bey nee na macha allah da koo jar soxu kaay kaay euh, euh, ci non U16 yi. bëgg naa ñu wax ci ankay bala maa ñëw ci sama yaay bala maa ñëw ci sama yaay ndikku cuun UCG bëgg na sa canta bëgg naa nga jox ma UCG ah RDC ak UCG yu Sénégal waaw U16 yu Sénégal yu RDC yi. Uh-huh. ay U60 lañ ñi am nañ 60 bu ñu waxantee dëgg Cheikh Anta wan ñu photo yi ah mais dëgg la. ah. da ngay xoore si Anta. génneel bi capitaine bi yere médaille bi borom moustache yi. borom moustache mais lii ñii seen kanam yi nga xamante ne ñoo sa maam ñoo maase. mais soxu lii lii. xoolal gone yi ñoom ñoom gone yaa ngi ne. gone ñu Sénégal ñi ñoom ay xale lañ. waaw mi ngi waajaa ngi. kii mooy seen capitaine. capitaine nu RDC. mi ngi noonu ak médaille ak moustache yi U16 la nii de. waaw mais soxu lii lii lan la ku ci war a euh, wax CAF wala. fédération wala FIFA wala ña

ci euh, mais bii bii dafa ëpp bii bii moom c'est abusé et ça tape à l'œil. waaw xool rek xam ni ñii ay mag lañ. loolu de ko wax neex na ma trop ça tape à l'œil jooju. saa kaay sa sa tape à jooju ngay wax noonu tape à l'œil jooju c'est vrai sa <laughs> tape à l'œil jooju. c'est boo leen xoolee da ngay xam ni ñii carrément maase wuñu ah ñii la ñii ñoo doon football <laughs> barki sëñ mag bi ñoo ñoo ñoo U16 gone Sénégal yi. ay gone ñoo sol yu vert ñii moom am nañ 16 am nañ 16 waaw. ñële ñooy mag ñi waa RDC ñi nga xam ne ñoo leen gagné ñetti bal ci benn. waaw ah c'est normal.

dag yenn dag yi mais lii ni ko soxla waxee dafa am dafa flagrant. waaw gars bu bu test IRM bu scanner yi. dina sa yax yi <laughs> la gars mais lii c'est de la pure tricherie bu mag mënul gën a tricherie bu mu ëppee nii. Mhm. am nañ deux ans. mais lii c'est abusé comme c'est sët mais dafa ñaaw Afrique li moo tax dañuy mhm. il faut que suivi tricher ak ay sanctions. ah dëgg la man xale yërëmoon naa leen. parce xale ndaw yi ñii seen 16 ans sax am na ay bébé lañ. c'est que seen kanam dafa yërëm. dafa tuuti par seen i sax dafa mujjee yërëm xale yi. Ah, il ñu xoolaat organisation bi Afrique la. CAF eh, ah. comme ni ko Sokh waxee. non mais lii c'est la FIFA la. nous ñëpp la fédération du Sénégal aussi. bien sûr. Ah, mais si ah, ils ont du mérite. du football ak ak c'est but. benn but trois la mhm. c'est vrai football. c'est c'est c'est football <laughs> ñu <laughs> nga jeex tàkk de. mu <laughs> ne yaa ngi ne match bi daa jeex ñu jeex xale dañoo jeex. war a dëgg dañoo jeex tàkk. <laughs> yaay kat gisoo borom moustache yi ñu doon football. ñu ne kii fukki at ak juróom-benn la am. borom moustache yi ñu ne 16 ans la am ki yor médaille. benn tournoi boo xam ne ñi am fukki at ak juróom waaw ñi koy yeesul. juróom-benn war a joué. fukki at juróom-benn waaye ñi fukki at ak juróom-benn. mais ñi kii moom la am ki yor bi. sa gis-gis est-ce kii am na fukki at ak juróom-benn yow kii moom sama maamu maata xam naa li mag la moo mën na jur mag la ñoo doon joué xale yi dóor leen trois heures waa atam <laughs> wàññiwul dafa dagg dafa dagg waaw dañ daan dagg ba mu dañaa ndikku nee xale yi seen kanam dafa jeex marsu bi ko yóbbaale ku leen juróon yërëm leen bilaay ku leen juróon yërëm leen

man ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñoo tax ñu am ko. jigéen ñi may a d' li jël mais ay champion d' lañ. dëgg la ministère des sports wala présidence waroon na parce que ñi ay jàmbaar lañ jigéen la boo gisee si terrain bi. c' vrai bëgg na sol elle a du mérite vraiment waxuma ko. dañoo merci. non waxuma ko bokk entité. déedéet. parce que dañoo bokk entité. dañoo terrain mu neex mo lool ma fonk ko ma fonk ko lool ndax sportif bi mu doon. bëgg ko passion la ci nekkee. dëgg la changé wul boppam. ñu laay mbi ko téye yeneen mor yëpp xeesal nañ c'est vrai ah ba léegi xale yi bàyyi leen xeesal waaw mel ni mu mel hmm? moromam mi si nekk muy jàmbaar fédération waroon nañ ko woo décorer ko ah. parce que bu Sénégal yi yëgee information bi c'est grâce à Soxna Fall def campagne bu metti amul benn compte nañ leen di jox seen i cër ba pare jox leen li ñu moom ba ci organisation tay bi niñ ci waroon taxawee surtout moom ak yeneen moromam yi taxawaay bi ñu ci am. waroon nañ leen ko gën a jox tey ba pare coach Moussa moom ñoom bi ñu jógee euh, kan wax naa leen ko. ne leen ndax ndax remercier nañu leen menn euh, capitaine bu équipe nationale. Kalidou Koulibaly moo leen wax merci. te franchement presse sénégalaise bi wala presse sportive bi mérité woon nañu merci. bien sûr mérité woon nañu jërëjëf ñu nekk ñu woon Cameroun. non non donc bu ñu xamee li xew Cameroun c'est grâce à eux ñoom ña fa nekkoon. mais surtout soxu suñu jàmbaar ji nga xamanteni ni jigéen ju mën góor la waaw euh, keer mom bu soobee yalla il faut nga dem keer di nga dem keer match yu retour bi Moussa amna amna internet mo wax legui ne ma Moussa no bo soxna fa wa bu ma no nobee tamit wacc de parce que lo dar nekk bala balaa nga dàq kër mu jëm al dakh dàq mu jëm àll xam naa amul ah? soxu de amul bàjjen mom Moussa melal ni man bu ragal dede man bu ragal ay ragal yeb yalla la na ba soxu daa baax ku ko am am ku gën di ñu bari nga koy xëccoo moom mu jege ma nii mu war ci am yittewoo di ko bàyyi keneen ah, <laughs> yi fàkk dëgg dëgg la te naaju naaju xaw na koo rey tamit wallaay wallaay da nga ko waroon yóbbu naa ko may jacuzzi xamaam massage ah mu noppalu mu noppalu waaw ko jar na ko laa jar na jar na ko loo koy may nga ni sonne naa nu ne. bu bu mu nekk yow yaa koy maase. non eh, waxuma man de bul ma dugal ci ay alima ragalal yàlla ay moromu jigéenam ñoo koy maase defal ko yooyu yëpp. bu mu nekk yow ca centre ba. kii yaayam dafa fiir yaayamam ñuy ma nga toog Louga di seetaan dañ ko yónni yàqamti ko bàyyi leen jàmbur. sama yaay la maa koy bégg li ne ci moom rek moo ne ci kii daf koy yar la mu ko tàggatee moo ne ci moom. bàyyi mais soxna pare ngeen pour dem euh, ci stade ba. voilà pare nañ équipe bi yëpp noppi na man la ñuy xaar ñu dem desk sportif bu dee média yëpp pare nañ ñëpp ñu ngi dem ci Zik FM Sen TV tribune actunet point net ñëpp pare nañ euh, médium yëpp ngir dem mhm. euh, mbir mi comme euh, léegi la ba guddi ñu fas yéenee comme dab rek dem yendu ji. Mhm. xibaar yi dara bañ leen fa ump. Mhm. ñu jottali leen li nga xam ne moo fay daal di xew inauguration bi ak euh, gan yi nga xam ne président Macky Sall woo na leen. Mhm. ak ñëpp ñi nga xam ne ci lañ bokk rek dina am spectacle dina am folklore mënut a ñàkk. spectacle son lumière nga nar a am foofu. tey mais ñuy ñaan sénégalais bu baax nañu am xalaat di. ça me bu fa kenn dara. louay lek def ko sa sac wala sa poche. c'est des milliards ce sont des milliards lañu investir. nañu and ak ah. civilisation. nañu and ak dal and ak tey and ak yar pour que bu hmm. ñu bañ dara. bu hmm. pendant 60 ans mu tombé nga am Coupe d'Afrique. louay def hmm. si defaat ko ci rafet civilisé. toog ci chaise yi fauteuil la sax dootul chaise yeegi. waaw kenn toogatul ci xeer. dëgg la. <laughs> dernière génération lañ ñu indil. stade bu rafet. ah kon dañ koy recevoir suñuy nawle nañ ko sàmm. te préparer match retour le le vingt neuf. ñu nag Égypte waaw parce que Salah mi ngi koy waaj Mbaye. ah ñu ngi ko fekk nu fi mbay. walaay nu ko war a waajee rek war nañu koo waajee nu ko raw. nu ko raw ndaxte comme yet ba dafa war a dal fa mu daan dal. de kese. comme pare. kese sax na woon fa woon. <laughs> coach Moussa merci beaucoup. Pagi gi ma ci sama yaay ndikku cuun nak événement bi mi paré nañu xeer suñu liberté bi jox ma ñu ngi boisson bi nga xamee ne moo boisson cidre fruité bio di boisson boo xamee ni am na ñetti parfum am na boo xamee li c'est à base de pomme am na à base de pomme am na boo xam ni c'est à base de pomme fraise si du universal trading ñoo ñu koy indil boo dee naan bi boisson da ngay digérer facilement boo lekkee boisson bi dafay tax nga taxali ko ak lépp luy ballonnement de ventre Les lo xamé à ay graisse la yu nek ci sa yaram poisson bi da koy dindi ba mu set mën ngeen ko am bu ngeen woté au 77 090 60 04 wala 77 090 10 12 boisson cidre fruité bio dama ci ngoy dama ci ngoy ba dëgër mosu ko jaree waaw Penda merci beaucoup mu ngi ci page officielle bu FM Sini mabay. Kumar, kuitik kuy tiktok sama aku lebih. Sini banyang. kuy tiktok sama aku lebih. Mabay. Kumar nang ma kuy tiktok sama aku lebih. ha Sheriff ha. <laughs> merci beaucoup jërëjëf. Isatou. Isatu. madame long life Ba Fajar. Momi merci baby bul tiktok sama xol yow li nga lambo wallahi bil commentaire non xol awa mbay deug ñi sétane depuis ñu ngi lay ala ko du ben la jojo coach Moussa nday awa gay mi neena dala bëgg nday awa gay neena ma waxal ma coach musa dama ko bëgg nama jox numéro ah wa bax na wa bax na su ko jare ñun suñu liberté ay ca bañal koy tik tak sama xol bi ay ca bañal koy tik tak sama xol bi ci di bañal koy tik tak sama xol bi ay ca demal maa bañ déggal li mu riiti fii ma teg ko ne ew moo sànneeku leen suba teel jaagu baas xanaa seytaane ew suba teel jaagu baas mooy chéri <laughs> déggal moo di kër caagu maas yow raay ma ñëwal jegam paasan sekk le patron célibataire <laughs> musuma gis li patron célibataire looloo yërëmtalu ah eh? waral loolu pasa non dama ne patron célibataire laa lu ko waral. lu célibataire lu ko waral. patron célibataire. daa ragal xale yi wala. ah daa ragal xale yi wala. pasa man a jéggi xam naa liñ may woo di ma laaj numéro am bëri na. suba teel li ñuy laaj Pa Assane. daa bëri nee nañ tere tere bi mu def fii watee fam bi. wana ko war ngaa neexal Patrice Lumumba bi la. wana ko war ngaa neexal ki lay wan de. Parce qu'il il me plaît trop là, mais j'arrive pas à le joindre. C'est-à-dire <laughs> que on tu sais, ma, tu sais ma fille. la manière dont il parle là, quand il parle les bouts, c'est exceptionnel. On a c'est la manière dont il parle qui est exceptionnelle ou c'est pas celle qui est exceptionnelle C'est la Personne. mais Alima loolu dafa am solo. xam nga gars yi dañuy jawwate des fois personnage. ak personnalité ak personne ak personne bi. c'est trois choses différentes. c'est vrai ah. waaw waay dëgg la et c'est important. yéen seekatu film yi yéen a ko xam. c'est important. moo jaagu baas yow raay ma ñëwal jege ma. suba teel jaagu baas. mon chéri déggal delloo fa sab loxo aku, daagu maas fekk maa ngi chéri ba kenn du maam ci aussi de bi laay boo génnoon bi may xale ma fecc ko ci télé bi. waaw kay Moussa léegi laa bàyyi de. yow bàyyeegoo TV def naa fi lu ne. bàyyeegoo def naa façon bu ne laaj ma Bakary. ca Medina. Medina. wallaahi. daa fi lu ne. fecc fi ay fecc naa fi ay xale yi amoo siis yéen moom loolu. loolu yàgg na lëmbal ko lëmbal gu boo xam ne. maa ngi sol robe bu de ndoket taay maam. ba jaaree fa tooy. simi samay dàll. <laughs> jaaree fa tooy. talon talon ya. ma jamonoy coquette boobu xale laa damay sol talon 33 centimètres ki mag la mënatuma ko Sidi Diop ñu ngi ci bégal bu baax internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre partout euh, Alassane Fall ba tey ñëwagul ah Alassane Fall nee na ayca euh, Touba la ñuy seetaane ñu ngi koy ziar bu baax a baax. mais Alima kii yooyu dama ko gisul de. kan seen champagne pomme la xaw ma gisuma ko tey ci taabal ji. boisson cidre fruité bio. anamu. waaw kay génne ko. da nga cee bëgg. ñu barkeel xaaral leen maa ngi ñëw te génneel leen ko léegi yàgg ajandiku. non mën ko xool rek. amul problème da ngeen ciy ñam. dama lay ñamal pomme bi. ñamal euh, ni ngeen def Cheikh Sarr. Cheikh mu naan loo nga ne ko soxu naanal gaaw. Cheikh Cheikh bëgg ñoo def yëfu wóoyu ne duñ ñam fraise bi rek ne duñ ñam pomme fraise bi naan Cheikh Anta pour maag yow la. <laughs> mu ne ko loolu loolu loolu du fi amee <laughs> ah. ma gaañ. du fi amee loolu ah tout mais c'est important c'est important de manger quelque chose qui est qui est bio. Wow. dans la vie surtout ak nit fonctionner il faut que nit ñi di lekk loo xam ne. digérer doo am ballonnement de ventre graisse yu bon yi da koy effectivement ñu ngi lekk di dem rek même pour le sport ça, il faut que nga boole ci waale euh, euh, euh, li nga une alimentation saine. saine et équilibrée comme on dit. Ouais. pour avoir une vie saine. donc la daf ci am important c'est à part le sport. il faut nga yëngatu. ñàkk la am ci kër gi erreur la. cim. la, gisoo la, naa ko rek mu ñëw. kaay ñëwal tegal ma nii rek fii tegal ma fi. tey dañuy trinqué lépp dagan lépp dagan. dañuy trinqué tey. ah waaw waaw maman gis nga lii de. trenkon damaa jooy abilum abilum euh, nee na Musa na Moussa la bëgg nee na mi ngi lay nuyu bu baax. nee na moom yow la bëgg maam Diarra Ndiaye nee na neex na Anta Bousso nee lan maman sa jongoma lan la merci beaucoup Anta Bousso. ah euh, Fat Diouf Fat Diouf VIP Sandi Jamra maa ngi lay nuyu Baye Mor hmm, Mor Mbaye depuis Gambie biir ah ñu ngi koy nuyu moom itam bu baax Abdou Mbow nee na Alima jugal fecc mag laa léegi dama diis mënatuma yenn yi Yacine Lo merci beaucoup nee na je t'aime Alima um Ousmane euh, Jiite ah ay euh, euh, ñoo la raw moom itam dem bi ngeen di wax léegi ci football bi mhm. ah kure kura kura bu kura bu ndooy ziar naa leen madame Mbaye Alima yàq l'animateur des quatre points cardinaux Cheikh Sarr mi ngi ñëw léegi gunge leen 14 heures incha allah moo leen di gunge 14h ba 17h. Mhm. ah Mouhamed Mbaye nee na buura xippil xool alima voilà ñu ngi koy ziar moom itam bu baax Cheikh Ña nee na waa Italie ñi ngi ñuy bëggee ñi ngi leen di seetaan ñoom itam bu baax ñi ngi leen di nuyu Alimatu Lum merci beaucoup ah Momi Ña elle a envoyé beaucoup de aw euh, Ndeye Awa hmm. merci beaucoup Ndeye aw moom laa la wax yóbbanteem sànq coach Moussa nen daf la bëgg maa ngi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax Youm Wally Eva Mbaye Italie La Diva Thiam Sophie Goudiaby Tafa Demedia Abi Kebe Tifa Seck Cheikh Nia Toutou Anne ah, article Mati euh, mënuma liir santam bi ah Chérif Diouf ak euh, Maymouna Thioban ah, ak euh, Sila Dia Fat Maguette Seck ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax internautes yi ak téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi biir bureau yi bérébu liggéeyukaay yi di ñu xool mhm. ñu ngi leen di ziare ñoom itam bu baax a baax ajot ndiku cuun euh, yaay booy dafa am événement yow itam booy pare sànq ñu ngi koy wax ci euh, rajo bi mhm. ah euh, ñi mu mhm. muy vendredi incha allah muy sa troisième édition anniversaire théâtre national Daniel Sorano ajjuma waa ajjuma incha allah bu ci yàlla àndee alima yaa ngi jàpp nag ci combat bi yow yaay suñu waa doom pat sax si sot la bokk da ngaa ma dem bay dem nga oowaat ma ne ma maman kaay nga yow fii nga bokk kaañu waxaat ci wallaay yow fii nga bokk kon nag njoon maa ngi lay ñaanal yaa ngi en direct téléspectateur yëpp a ngi lay seetaan partout xam naa loolu man xam naa loolu mhm. njoon maa ngi lay ñaanal yaa ngi nga àndal ñëpp ñaanal sama doom ji jóg papis jóg léegi la ma may xaalis si coach Moussa wallaay dëgg la waaye ku la ku la gis xam ne rek la jooree sama ndeysaan lajjoor ku lu jóg Fatim ngay ca la ma yaasin gis jam ko du sàmb ak ndey bërgé te jóg maay saa xewar ku la xool xam ne fitul lajjoor nga yor <laughs> waa Ali maa ngi woo ñëpp mhm. maa ngi woo waykat yëpp mhm. nan ñëw jàppale ma mhm. di woo axlu làmb di woo mbëri sama doom yi sama champion yu ndaw yi dëgg la di woo nag dem ba yaasin ku ma bëgg ma jox ngoone amal seen amal seen sëtu sàmba xoyaan bi di gi di Bordeaux doomu ndeyam di wo ñepp suma limé damay jum rek wala duma matalé deug la di wo Balla kay sama dom, mhm. soose bi lamb ji yépp di wo lamb ji yépp motlo mhm. bakkal la di wo sama dom ji daan barki démb rek reug reug reug reug waaw di wo tamit doomu ndeyam guuy gi mhm. te xam mom lamb esport euh, la rek wallahi waaw bakkal la machallah bari na ba yow ñëpp la ameen njukkal euh, li ma wax sànq ci rajo bi ne ñëpp la amee njukkal boo wootee bés ñëpp war a wuyu si ndax euh, mm-hmm. kenn nga ci naanaani ci Sénégal waaye kenn nga itam ci euh, làmb ji donc axlu làmb ak amateur promoteur ah ak CNG ñëpp la way war a wuy si ñëpp la amee bor. Mm-hmm. donc vendredi incha allah woo nañu ñëpp entrée bi ñaata la. entrée bi VIP 10 000. ak ak 5000 waaw. ku bëgg bi yi boo ñëwee ba ci bunt ba di ko am. ba ci bunt bi di ko am Thiara Diagne tam mi ngi jaay. Caana Diagne jour jour. waaw jour ku baax. ñu ngi koy nuyu Caana Diagne jour jour. sans waa jooju ah, président Amadou Diagne Fojeka mhm. ah, ci parrain yi la bokk. ci la bokk. Ah, Abdou Aziz Alé Ndiaye. wallaay Abdou Aziz Ndiaye. Uh-huh. li man laam. Mhm. tubaarkàlla ñoom ñëpp maa nañ. Gaston Xaali Mbeng jàppale ma Gaston. wallaay ak makkan ak makkan mi ñu tuddee maamu. makkan wallaay dëgg la. waaw dëgg la incha allah àjjuma fa la ñuy daje man moom xam naa maa ngi Moussa ñooy ànd. yow ah, mais Alima ñun il faut ñu ñëw. Alima il faut ngeen ñëw. maman maman Ndiku dafa am lamb ñoo ko amal njukkal. dëgg la toog naa nit stade mu woy ba pare lamb ji commencé bu mu jooy ba ñibbi. ndax ci kontaan ni mu lay woyee layoob jeega ak beneen way bi nga xam ne tàmm na ko way ci làmb ji nga xam ne bu ko mësaan jël mook suñu papa duud yaaykat yi man loolu bokkoon li tax sax ma gën a am contentement di mm-hmm. li nga may ma bokk ak moom plateau parce que ñii ay ay ndaanaan lañ macha allah ay ndaanaan lañ yàlla eh, leen yàlla defal jàmm te ñi woo sénégalais yëpp ñëw fekk ci ko ci ci bés bi parce que fii nga mën a delloo monnaie bi fii lañ leen mën a delloo njukkal li ñu yàgg bëggal sénégal en tant que sportif en tant que en tant ku bëgg làmb ko amateur. entrée bi seerul euh, junni la ak ñaari junni nañu ñëw ajat ndikku ci jar na lu ëpp loolu entrée fukki junni sax boo ko defoon réew mi dañoo war a ñëw. Euh, waxuma sax ndaanaan gi nga doon waaye li nga lebal askanu Sénégal. ñëpp a war a ñëw la ko incha allah kon ba vendredi yaay booy. waa kontaan naa njoon. bu soobee yàlla doo may layoo bi jéeg. ma gaawaale sama noonu ñoom Seck Anta sargal Bamba Fall sargal Bamba Fall mori mi ci ndara mori mi ci waal di woo nag waa Nouvelle Vision yëpp nag d'accord di woo Ndeye Sala Diop ak waa Grande Car d'accord maa ngi woon d'accord d'accord. layo bi jeeg Alima Njoon. Oh. bu doom ya màggee atal leen. Alima Seye layoo naag jeeg ji leen. moo bi jeeg yaa ko Alima. yow sa yaay dalaa ñaanal yaay jur jël ko nopp mu nangu. dëgg ana pilifooru jëkkëram. maa ngi fu la gi ci yow maa koo xam fayda gi ci yow maa ko xam baax gi ci yow maa koo xam taar bi ci yow maa koo xam. jigéenu Seex Saar. dëgg la oh. Cuun maa ngi. ana jigéenu Papis Jóob la joorey sa maam Moussa wallaay dëgg la Moussa la joorey sa maam la joor kure joo Fatim ngay calo ma samba yaasin gis jam koddu sàmbak ndey mbargeet ak jogomaay ewa waaye maa ngi woy Fatim cuun yirim ndeela mi ci danga màgg baax ñu dekk la joosi ñaa yàlla weddi waaye kura cuun nee na yowa asu cuun nee na yowa maam jëw cuun nee na bu ko waxee nee na yowa dengoñ mi ci ngaraaf yaayu xaadim ak papiñaa ew oh. <laughs> na sa jàmm yàgg jërëjëf Thioune merci beaucoup Moussa Moussa yenn saa yi su ma bëggee gaaruwaale sama noon yi lii laay teg xale yi li ñuy wax seen noon imaginaire di ñu eh. yenn saa yi su ma koy wutal sama bopp daan sama noon yi déggal fii moo xotti mbedd yi génn tali dëkk yi génn mooy l'homme de keroog bi muy teg pose première pierre bu aéroport bu les Diagne gaa dañ ne paa bi dafa naax am vision waaw waaw a ida akan wadenya nilan muye ngiriman honorable député Mame Diarra Fam gisuma ko waaye xol ba féex na président Wade rekk la bëgg mi def lan yaa mën a way ew nday pendaloo yaayu Adama ndey Penda loo Fatou Dia Fatou Dia kumba muy loo Moussa déglul fi Moura Faba Moura Faba Mouye Gete Faba Mouye Mati Kansiri Tako Bingel Donay Samba Gela Jéeg Mamba Jaaxu Samba Gillaay Mané Coro Sarr alkatima Samba Kod déggal alkatima Samba Kod ewa eh, oh. loo ko jam jam dana ñëw borom fit ak fulla ak jom lañu fayee stade bi président Abdoulaye Wade Sénégal dootu la gaaw a fàtte déedéet Loko kutul loo ko jam jam loo ko jam jam dana ñëw wee village Sénégal duñu la fàtte ay gete fa paas mati kan siri takko bingel ba ma bajaxu samba gi laa jéggi Pape Thioro Sarr Aïda Diop taalibe Cheikh loo ko jam jam loo ko jam jam dana ñëw kuy loolu walaay dëgg la i daal a euh, jagleel waay wi jàmbaas ci baayam bi nga xam ne Sénégal du ko gaaw fàtte l'homme de l'alternance l'homme de 19 mars 2000 président Wade mi nu fayee euh, stade bu euh, bi nga xam ne moom la ñu war a euh, inauguré tey ji moom la ñuy inauguré tey mhm. Khadim Mbaye Dogo Padros maa ngi leen nuyu célibataire bu mag bi <laughs> waaw bés bu ñuy maye maam jaara nga ñëw toog ñu ne ana baay bi ñu ne baay bi célibataire la hmm? di nga xam ne gàcce foofu la yam comme Cheikh Anta Gaye <laughs> Padros kay man nee naa ko mbay kaanu diisoo Padros Ousmane. bu ITV. non Padros Mbaye. célibataire bu mag. nee naa ko bés bu maam jaara yi sëy ñu teg maam jaara di ko mbóor ana baay bi baay bi ñëw ñu ne baay bi célibataire la mbay kaa ñu diisoo. man sa jigéen laa. Eh, kii bee da koy dimbali dafa mënul ko tànn. sélection bee bari tànn rang bee serré. comme Cheikh Anta. il a l'embarras du choix. de man ils ont nag mbay sama xel nga bëgg a ñaaw. ils man seen jigéen laa. nañ ko waxtaane rek. waxtaane lan. ay yu lépp am solution di. ban solution. <laughs> Alima yow it rang bee bari de xale yi bari jikko rek xamaguñ ko ñuy tànn moo tax arrête bu xale yi normal la rek ñu am ko normal. mais gisuñ lu leer. lii dootul anormal ak choix. lan la léegi. ah man daal sama xel ñaaw na daal. yàlla xel de. ma xel ñaaw na daal mais man daal seen jigéen laa Xaadim Mbay Dogo Padros Cheikh Anta Gaye ak ñeneen ñi mel ni ñoom. Saliou Khoule foo ko fàtte. sa Saliou moom dama koo dama koo bërgël moom damaa wax moom mu a ma takku ma <laughs> dama dama carrément takku ma Saliou moom Saliou moom dana ma carrément man takku ma mais daal seen cas critique na sama xel ñaaw na ci loolu. man seen jigéen war a yóbbu fële utal ay testeur. fii soriwul. testeur fi ñu joxe reen yi <laughs> bi doon joxe reen ay moom ba dugal. Ah! rajo en direct la te lii. fan la nga ne dëkk bi nu mu tudd. Jasam ah. aleen fa demal. réer euh, bi réer yi seerul. baa duñ leen yóbbu dëkk boobu nga xam ne président bi dafa génne article bu bees. Euh. benn góor amatul droit am benn jabar. ñii par force. kon dañuy dee. par force amoo droit am benn de. pare wuñ pour am benn bay am yeneen. Eh, mais yow Alima kii mu ngi lay nuyu Ida ci boppam mu ngi lay nuyu Ida Wade. Ida message léegi mu ngi lay nuyu. am na baay bu riis doomu ndey ak Rama Diagne centenaire. waaw ak ñoom Fatou Koumba. ñu ngi koy nuyu ak mère Beuz. yéen a tax mu xamal ginaar yi. déedéet kay di la déglu yaa bu xamal ginaar. borom ginaar ya ñu ñu ngi leen di nuyu war ngeen koo fay. ne bu ñu fayee ko ne ko man su ma fayee ko waat. sama yaay jooju yaay Fatou Koumba. yaay ñu ngi leen nuyu Rama Diagne doomu ndeyu euh, Ida waat waaw di di di di jégalu ci ginaar yi ñu xamal. yaag seex la de. waaw seex baal ñu àq ñi ngi tuub ñi ngi jégalu. Kura euh, Kura euh, Kura Ndooy mi mu ngi ñuy mu ngi ñuy seetaan moom itam ak euh, Kura Ngom depuis Louga. Mhm. Eh, Adja Ngoy borom histoire de plaire ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax. Hein, ak euh, euh, Aladji Thiam Bourguewel Lonase Amadou Diop Da Fashion Waxa Fall sama patron ñu souhaitons joyeux anniversaire à bébé Lidi Fatim Fall hein qui fête ses 10 ans ah, waaw yal na yalla def la mak mu am ñam sa bay ku bax la hein euh, dama ko dan woo ne ko patron gaz bi jeex na yónnee ma lu ma jëndee gaz ah hein? xam lu ma neex ci yow. Hein? da nga deug ah dañoo am benn problème sa bop ngay jiite. amuñu benn problème mais sa photo bi doy na waar xanaa ki Cheikh Anta ko defar. photo bi. hmm Cheikh Anta la photo. fii. Cheikh Anta damaa bëggee nii. ah non lii liggéey Cheikh Anta la photo bi moom macha allah. lii maa lii maa ko photo sama bopp. yaa ngi ne trop. xaw ma ma ko photo sax. yaa ngi Cheikh. waaw laa ji Cheikh. dan ñun dañoo a wane nag yow. Ah, loolu am na de. ñoo neex a wane heure bii ñëpp seen la ñuy seetaan. ñoo neex a wane déglu a wane. mère bi neen ma doom jàppal ma fii. mane ko maam lay jàpp mu ne ma jàppal ma si. wallaay wallaay ndeysaan ma ko mu ne ma télé bi taalal ma seen TV am na 75 ans de. dafa dégg ci koñ bi maa ngi romb coach Moussa romb ne mu ne pas du ne ci télé bi. waaw woo leen ma ko mu ñëw ma ñaanal ko. am naa mère boo xam ne dama ko mës a gis ndeysaan mag la. Mhm. ba ci dafa dafa muuru. Oh. mais day wax waa kër dafa am rajo. ndeysaan mais demul fen benn place la toog mais day wax waa këram jàppal leen ma rajo bugaan bi. jàppal leen ma télé Bougane bi moom foofu la kar ñaar kal ñaari yëf yi télé bi buñ ko jàppalee dina dégg mais du gis mais keroog bi ma dajee ak moom mu tuur ay xéewal ndeysaan oh, wax ñu cofeel bi mu am ci kër gi da ngay xam ne ñooñu euh, jar nañoo liggéey ba dee jar nañoo liggéey maman Marème maman Marème Dia depuis Castor ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di toute la famille maam bi baax et toute la ngi leen di ñu ngi leen di ziare bu baax a baax ñooñu def leader bi ñu doon. Mhm. ñoom ñooñu ko def. ay ca Viviane wooyal. 4 point 4 noonu dafa bëri rab. fees del rab daal. luy problème moom xanaa xale bu jigéen nga doon waxal. appel bi dafa yàgg. demal ma pale ba pale ba demal ma pale ba pale ba pale pale pale présidentiel ma foofu. mosal ci li ngeen di dina lu ñu la jox nga yóbbul ma ko joxal ma ko ma dem sax. Masa jërëjëf jërëjëf Macky Sall moo ma doon jo moo ma doon doog a jox léegi sama invita invitation. ah ok pour stade bi. waaw pour stade bi inauguration bi. waaw ok. mais yéen a ngi ci jàmm. mais yëg nga ni RTS dindi nañu affaire yi. comme. ah dindi lan. RTS day joxe signal ku ne teg sa commentateur. waaw moom laa lay wax. signal lañ leen di jox mais du ngeen def direct. mais ñooy commenter suñu bopp. amul problème du ñu jël seen commentateur. amul problème ah. ah? non c'est que xam nga la mooy problème bi. nga ne loolu. xam la mooy problème bi en toute sincérité bu ñu waxee ci liggéey dëgg dëgg dëgg. tele yi nga xam ne ñooy demandé pour def direct mat na presque dix télé. ok dix télé. ci benn stade ñu bëgg def direct defandoo direct. dina am sax kenn koo xam da koy jox foo xam ne du ko neex. comprendre nga beneen bi ci tegee tele bu dem région ngay région ngay yóbbu. stade bi yëpp nga bëgg ko relais ay ay camion région. eh yow matériel numérique yu bees yi. xale yi saag la ñuy oddoo di def direct benn. deuxièmement dañu am tribune presse foo xam ne place presse bi la occasion la woon pour ñu tester waale affaire yi. waaw léegi boo defee tribune presse xam nga tribune presse bi lu gudd la comme Longchamp. léegi kenn ku ne bu tegee plateau. 800 est-ce que ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk dina mën a métti maanaam est-ce que ñun Sénégalais am nañ comportement bu mën a maintenir direct nga maintenir direct direct kee maintenir direct da nga gis. invité bu ñëw boo xam ne day jaar ci digg ci digg caméra yi xam nga ñun amuñu amuñu esprit boobu. ñun ñuy dóoroon rek xam nga naawal drone naawal. xam nga boo eh, xoolee boo xoolee. tribune presse bi fi mu nekk. xam nga stade bi ñaata place fii fii fii ci gradin yi fi nit ñi di toog. xam nga stade bi ñaata place la tey boo demee Ligue des champions. da ngay gis day day nekk stade bi day nekk benn plus de tant de mille personnes bii mi ngi nekk cinquante mille personnes tey jii imaginer tey jii nii xam nga mooy première fois ñu ubbi ko. di nga fa dégg ay di nga fa dégg ay blessures ay blessés si. ndax lan ci génn bi. ci ñibbi bi.

non non non loolu moom. loolu moom léegi nag direct bi Ndior. Hmm. yow techniquement yow en personne. Hmm. ci média nga ne xam nga. Hmm. mais direct bu ñu defandoo bu télé yëpp defandoo direct. li nga bëgg doo ko am wala bu ñu paree danañ ci yàqande. nga joxoon RTS mu jox la plan yi nga bëgg. jo di la seereel di la deseereel di la jox ay gros plan yu doy. ba pare dañuy utiliser wala caméra caméra stade bi. 33 trent caméra yi la RTS di utiliser. dañ lay jox flan yëpp dañ lay jox tribune jaune. jox la vert jox la noir jox la rouge jox la spi lépp euh, euh, lañ lay jox. Ah, li yow loolu waaw li yow boo boo boo amoo loolu boo amee loolu ci mais mais boo jëlee signal xam nga mën nga jël signal. <laughs> dindi ah, def signalu RTS. nga def sa plateau boo xam ne Alioune Ndione Cheikh sar ak Moussa ñooy toog. Mhm. bu ñu toogee def benn débriefing bu ñu paree delluwaat RTS. RTS dugal nga génne. man moom gaa moom man moom gaa moom.

nga jël direct bi jox ko TFM ñu ne ñu ne Youssou Ndour la mu fa nekkal nga jox ko wa euh, Sen TV ñu ne Sen TV kat buggaan karab karab la ñu bëgg a neexal ñu jox ko Walf Fadjri ñu ne nangam mais boo ko joxee mais soo ko joxee moomeelu askan bi nga xam ne RTS comme li Alima ñoon wax démb xam nga Alima ñoon démb dafa wax wax ju am solo dafa ne stade bi bien commun lu ñëpp bokk la RTS lu ñëpp bokk la voilà ko joxee nag moom mu génnee signal réew mi yomb naa lijjanti de waaw mu ngi noonu réew mi lëj na daal ñoo xam naa damay mujjee dem stade ba wayaani nii sama sama ah. d'accord ah. nañu ko yónnee non nañu ko yónnee jot gi bëriwul waaw kay cag cag cag yaa ngi ne ko na ko jox cag cag yi. na ko yónnee na yi na yu bëri na fi. waaw kay ayca léegi dem yombatul. maa leen di bàyyee sama waa ji euh, euh, Sen TV ñoom ñu nga jëm journal incha allah journal olof à demain incha allah 10h 14h. incha allah maa ngi leen di bàyyee sama waa ji mu wéyeeg yéen ba 17 mi ci kanam incha allah waaw 14h ba 17h 14h ba 17h. du yomb ayca gën neex. à demain incha merci coach Moussa. Cheikh merci merci beaucoup la Sen TV. waaye maa ngi say histoire ci affaire yi rek merci beaucoup bon appétit à tout le monde.